ñu gis ni saa bis bi di yegsi ñu koy séentu waxuma Sénégal waaye dafa doon loo xamante ni dafa am une dimension régionale et internationale xam nañ ni njaboot dina bawoo fu nekk ngir teewe bis bi ci Njaasaan xam nañ ni taalibe yi dinañ jóge Gambie taalibe yi dinañ jóge Mauritanie taalibe yi dinañ jóge Mali taalibe yi dinañ jóge gine waaye taalibe yi dinañ jóge ba réewi Europe yi ak réewi Amérique yi ngir bokk ñëw teewe bis bi fekke waxtaan wi waaye fekkee jëf ji nga xamante ni moom lañ fiy def te lépp jëm ci nafaraat fàttalikuwaat waaye dolleentewaat ci lépp loo xamante ni dafa aju ci jikko yu rafet yooyu nga xamante ni moo taxoon suñu boroom wàcceel ñu royukaay boobu di Seydina Mohamed aleyhi salaatu wasalaam di gën gi mbindéef ci wàllu suñu diggante ak taxaw ci liggéey bi monsieur le maire Ousmane Gueye fàttali na ko léegi laata moom El Hadji Bekay fàttali na ko comité d'organisation bi jàppante nañu ak ñoom ngir lépp lu waroon ci bisbi, son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ci coordination ou premier ministre Amadou Ba sant ñu ñu taxawee ko kon ñun kañ ñi nga ni ay ndaw suñu kilifa dénkoon ñu ñu taxawee ak yéen bis bi ñun ñooy gën a sant yàlla bi ñu toogee fii ngeen seede seen président de la république Macky Sall te lolit lañu sante sant ku ne xamna na yitte bi nga xamante joxnako jox na ko yi ku ne xamna bi nga joxnako lepp luy soxla askanu Sénégal lolo waral këru diine go dem di nga tek ci sa baram lo xamante def nako fa ci réalisation te mu dëppoo ak limu tuddé won programme de modernisation des villes et cités religieuses Serigne Ousmane fàttali ne ko léegi résidence bii nekk ci bunt bi bi ñuy ñëw tañu romb ko mandargale ci fii ñu toog AGETIP tàmbalee liggéey bi bu soobee yàlla insha allahu rabbi dinañ ko yeggale am na doléance boo xamante ni ñëw na ay ati at ci réunion yi nga xamante ni comité bi daana ko def ak administration bi ba ci ren jii bi ñu toogee di ci waxtaanaat wat nañu ko laata may jóg di ñëw ànd sama naataango yi ñu waxtaan ci ak président waxtaan ci ak le premier ministre waaye le ministre Mansour fay mi nga xamante ni le président dénk secteur bi mu woowalaat ma boppam ni ma lii di yittey xalif bi nekk ci diggante ndànk ak ngaay mexe di distance boo xamante ni dañoo bëgg ku leen ko goudronel defar tali bi boole nañ ko ci programme spécial de désenclavement bi ba fii ak at mi di jeex bu soobee yàlla dinañ ko tàmbali président ni nañu insister ci fàttali ni lépp loo xamante ni mooy yittey këru diine yi ak mooy yittey waa réew mi loolu mooy li nga xamante ni moom la def soxlam fas yéene tal ci la nekkit di ko doxal ak di ko wéyal di ñaan sëriñ bi ñaanal ko sumb yi mu am fii ci Njaasaan waaye am ko feneen it ci senegal yàlla kattanal ko dooleel ko ba defal ko ci lu kawe njort li nga xamante ni yaakaar na ko ci mooy fexe ba li sénégalais yi bëgg di ko xaar soxla ko ci moom te mu nekk ci bi mu ñëwee léegi te foo romb gis lam fa def yàlla sottal loolu yépp